résumé bi mooy si premier point bi ñu développé mooy problématique wu mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom moo am si luyaas bi te luyaas bi xam nañ ni jafe-jafe ji yëpp li ko li mooy ñetti Euh, ñetti ñetti affaire yoo xam ne tant que jéemuñu ko lijjanti munuñu munuñu wax ni que tey dañuy régler problème bi parce que mooy bi ma wax bu njëkk bi mooy euh, euh, foncier bi wàllum suuf bi njëkk li li muy jar ni ko nit ñi di yokkee parce que ni ko nit ñi fi ñu bëgg dëkk ak ak njëkk yiñ fay féetare xëj na des fois dafay jéggi dayo ba nga xam ne nit ki du si mun a jot wala bu Sénégal lambda bi poche may ko mu agsi mu mu mu àgg si loolu beneen bi mooy wàllum financement bi mooy suñu suñu rapport ñun sénégalais yi et je dire africains yi suñu rapport en général ak banque yi ak institutions financières yi parce que ñoom tamit nañ ma baal mais kenn du leen tudd mais nañ leen di tudd nag nañ di tudd parce que tey ñun ñii ñëpp di ay professionnel muy yéen journaliste yi assistance bi ñun professionnel ñun ñëpp kenn ku si nekk lu mu bon bon am nga benn compte bancaire sa compte boobu yow sa xaalis sa alal nga siy dugal di ko si génnee mooy yow tey yow yaa tax banque bi exister parce que banque bi si sa compte boobu ngay sukkandiku pour mun a couvrir ay charge si sa compte boobu ngay sukkandiku pour mun investir si ay capitaux kon nag ñoom dañu war di wax ak ñun waxtaan bi nag mën na yaatu tey jafe-jafe ji lan la nit ki faw nga am sa sutura sa sutura mooy sa kër dëkkuwaay ndax xam nañ ni nit ki boo lekkuloo naanuloo sax boo amee sa sutura yaag sa njaboot xëj na lu bari dina la wàcc stress moral bi rek question de violance yi ñuy wax yëpp si dëkk bi mais yu si bëri fii la jóge parce que nit ñi toogatuñu seen kër yi ñi ngi si mbedd bi boo jugee di ñibbi sax xamoo ndax fi ngay tëddi di nga fa am jàmm mais fi nga dëkk nag boo fa amee jàmm dëkk si si si si si si si si sécurité am sécurité am jumtukaay yoo xam ne boo duggee sa xel dina la dal xam nga ni yaag sa njaboot yéen a ngi si jàmm mais yaakaar naa bu boobaa am na leneen looy tar du def ñaawteef kon nag banques yi nañuy wàccee seen taux yi c'est élevé léeg-léeg seen politique ñu ne la taux bi nangam la six mais daaw daawati géej période Covid gi dem leen France France dem nañ ba un pour dem nañ ba moins dem nañ ba zéro virgule zéro zéro ba pare di insité nit ñi à ñëw leen rep parce que dëkk foofu lay toll mais tey kan moo ñemee dem rep banque rawatina nag pour tabax kër parce que tey pour nga tabax kër déjà condition yi la banque keroog dégg naa si benn émission bu ñu nekkoon suñu benn collègue tabaxkat naan tabax dafa yomb njëg yi 3 millions 4 millions ma ne kooku tabaxul kooku tabaxul nañu waxante dëgg parce que kuy tabax ñun dañuy tabax dañuy suivre tabax xam nañ liy tabax wax waxuma waxuma tabax bi balaa ngay tabax rek démarché rek dox bi administration autorisation de construire leneen ak leneen euh, étude de sol euh, euh, nu mu tudd plan béton armé plan archi yooyu rek dépassé na moom li muy wax waxtuñu ciment bi di yéeg a ko wàcc fair bi carrelage peinture nangam nangam nangam nangam nangam nangam tey boo buggee tabax tey yow kër boo xam ne tey mun naa si wax boo buggee tabax kër boo xam ne kër boo xam yow di nga am aisance familiale rek minimum minimum di nga dem ba dix huit vingt millions pour nga tabax pour nga réal te loolu teere njëgu suuf yi bokk si tabax bi la suuf yi bokk si suuf si moom kenn waxatu ko tey Dakar mënoo fi am terrain moins de quarante cinq ou cinquante millions bi si gën a moins te pour nga gis ko di nga son bon yooyu yëpp ay programme moo tax financement bi foog ñu wax si foog banques yi ñu permettre sénégalais yi ñu mun a am accès au crédit immobilier bu ñu mënul am accès au crédit immobilier sax ñu mun a am ay jumtukaay yu leen permettre dans dix ans ñu projeté si loolu mun a épargner en attendant ñu mun a demander benn prêt immobilier il faut des programmes divers parce que tey yow boo nee salarié yi kese ngay financé mais da nga exclure soixante dix pour cent de la population parce que secteur informel bi du ñu salarié waaye ñëpp xam nañ ressource financière bi ñuy généré mais ñooñu da ngeen di permettre ñoom tam ñu mun a prétendre à ces prêts mais tey li ñuy njëkk laaj si prêt immobilier mooy bulletin de salaire or mi bulletin de salaire boo ko amul ñu ne la garantie te garantie bi ñuy laaj gi si gën a graaw mooy garantie foncière la ñuy laaj mooy yow da nga bëgg kër amagoo kër ñu lay laaj suuf pour nga garanti ko c'est un problème bref nañu waxtaan ak ak ak ak banques yi banques yi waxtaan ak nit ñi di communiquer ak nit ñi di def yu mel nii di waxtaan ak sénégalais yi di dem si tere yi di waxtaan ak sénégalais di expliquer nit ñi seen taux yi ak seen procédé yi lan moo ko waral nit yi di ko comprendre ñu faciliter ko te loolu état bi da si war jàpp banques yi di faciliter l'accès au crédit parce que c'est un droit dafa nekk loo xam ne yoon la wareef la parce que bépp euh, niñ koy waxee structure bu nekk si dëkk di fa liggéey da nga am devoiru contribuer si développement waxaguma sax économique wala dara mais développement moralu nit ki mooy nit ki dafa war a am yaakaar ni que man bu ma demee si soxna Daba mi sama soxla dina faju loo rek day dagal xel foog banque yi taxawee noonu. ñeteel bi mooy fiscalité bi fiscalité bi nag moom xam ngeen ni suñu nguur gi moom nguuru fiscal la kenn du ko kenn du si sori nag a ah, ndax ndax du comme li ñuy wax koy waxtaan ak moom doo ko sànni xeer du noonu waaw nguuru nguuru suñu ay partenaires lañu waaye daal fiscalité bi nañ ko seet na nooy waaw. la fiscalité TVA à 18 pour cent taxe sur le revenu à pour cent et récemment récemment plus-value bi nga xam ne mooy nit ki buy jaay alalam moom moom moom alalam di ko jaay tey bu demee si notaire taxe bi yóbbuwaat nañ ko ba quinze pour cent xam nga loolu jéggi na dayo tey man léegi bu may jaay sama sama suuf ma koy jaay cinquante million ah war si fay ñaata sept million cinq cent comme privé mooy jaayatuma sama terrain cinquante millions maa ngi ko jaayee quarante deux millions cinq cent war si génnee commission bi ma war a fay war si fay enregistrement mbokk yi ñëw taxaw mais sama terrain bi ñaata la ma dikkee au donc damay naan xaaral ma jëm ko jaayee 60 millions ndax ma amoo ci charge yooyu yëpp donc bu taxi yi wàññeekoo daf ñuy dimbali ba nga xam ne yu si bari dinañ ko mun a dinañ ko mun a rijjanti et puis dina yombal nit ki. waaw pour dem si troisième point bi mooy mise en place bi comme ni ma leen ko waxee du ma si sori ndax c'est à l'initiative état du Sénégal moom moo ko junju moo toog xam ne ni que dëkk bi metti na waas bi cher na mu ne nañ teg benn benn benn benn jumtukaay boo xam ne dina mun permettre ñu saytu loolu yëpp te si biir jumtukaay boobu ñun fasis ñun ñi ngi si biir ndax boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ak ñoom tey jumtukaay bi euh, euh, argument yi ñu tegee jumtukaay bi ñun bokk nañ si ñi ko rédigé kon nag ñu ngi sant yàlla te ñu ngi continuer di si waxtaan te di dara xelu nit ñi xam ne que tamit lépp lu ñuy def rek dañ koy def pour sénégalais bi parce que ñun si lañ bokk. ñu nit dañu bugg am kër comme ñëpp ay sénégalais lañu donc moo tax boobu moom duma si sori waaye xëj na bu sottee sénégalais yëpp dinañ gis njëriñ li dinañ gis impact bi dinañ mun a état bi dina gën a mun a am loxoom si kaw secteur boobu secteur luyaas bi. bu ñu demee si recommandation yi comme ni ma ko waxee sànq xaw naa si yàgg si français ah dama ne ñun nag léegi nag ñun nag ñun ay ay. professionnel lañu si suñu liggéey waaw ay professionnel lañu si suñu liggéey suñu professionnalisme nag may nañu ñu saytu secteur bi ba xam lan mooy jafe-jafe bi lan moo koy lijjanti naka la ñuy def ba li ñuy lijjanti bu xësee ba sotti képp ku nekk di nga mun a nekk à l'aise fi nga dëkk ñu ne ñun am nañ si xalaat xalaat boobu mooy bu njëkk bi mooy ñun suñu bopp ba pare dañuy fexe dajaloo organiser wu former suñu ay nit te suñu nit nag toujours dañ koy répéter te duñ jug di si répéter courtier bi élément essentiel la si parce que ñun suñu fédération loolu la ñu xeex parce que am na ñu fi bëggoon taxawal yu mel nii waaye dañu ne ñoom courtier bi gisuñu ko waaye tey y a plus de quatre mille à cinq mille courtiers ne serait-ce que dans Dakar mais tey ñooñu ñëpp si le marché de l'emploi c'est quelque chose mais ñooñ ñëpp ay ay ay ay borom kër ga ñu yor seen njaboot di leen dundal état joxu leen liggéey keneen joxu leen waaye dañu xëy xool métier boo xam ne mun nañ si daan seen doole ñu di si góorgóorlu di si am dara di jëriñ seen njaboot bi donc ñooñu dañoom pois économique kon ñooñu ñun mënuñu dem bàyyi leen dañuy ànd ak ñoom parce que ñun ñoo bokk li ñuy def li ñu wute ñaar dong la dafa mel ni jaaykatu magasin bi ak ki taxaw si biti di jaay euh, mbuboom benn la xam nga tey doo ne da ngay éliminer kiy jaay si mbedd bi ndax ba boutique bi pour boutique bi jaay dañ ne ñun dañuy ànd dañuy ànd ak ñooñu suñu xarit yooyu suñu nit yooyu suñu mbokk yooyu suñu àndandoo yooyu dañuy ànd ak ñoom fexe ba ñun li nga xam ne fexe nañ ko ba am ko si jumtukaay ñu fexe ba ñoom ñu jëriñu si buñ si jëriñoo ba pare ñu fexe ànd seeg ñoom jàngal leen si la ñu séq ay contrat ak institut bu mel ni ISEP depuis deux mille dix huit deux mille dix neuf ñu ngi koy dox ak ñoom signé ko di di def ñun ñuy soumettre ay programme de formation si immobilier ISEP di ko appliquer ba ren la premier étudiant yi ren la ñu génn ba ñun ñi fédération ñun la ñen yabalaat pour ñu ñëw def seen premier stage si ñun xam nga contrat boobu am na solo tey étudiants yi rek bu ñu génnee si université yi pour ñu am stage rek problème la waaye ñun suñu secteur ñiñ ko seqal étudiant bi bu génnee premier stage am ñun par force dañ koy jël pour trois mois te bu ñuy recruter tam foofu la ñuy njëkk dem kon nag am na solo kon nag loolu état war na si bàyyi xel nit ñi bàyyi si xel ñu gën ko dooleel gën si sukkandiku ba nga xam ne bu ëllëgee Ah, xëj na am na yenn def-def yi nga xam ne nit ñi dañ koy jànkonteel parce que faut le dire nit ñi léeg-léeg ñu séq ak courtier agence mu am ay jafe-jafe ñoom ñu jàpp ni kooku ni mu doxalee du yoon wala sax muy nekk dëgg ni kooku ni mu doxalee du yoon tey dañu ne tey nit waru mun a ñëw di ut kër nit ki di ko xoolal kër kaay ma wan la kër rek mën a fay ma 3000 pour visit amul ñun fas yi si loolu njëkk xeex c'est inexistant munoo demander fay njëgu service te yow doxagoo service bi service bi kay paquet la paquet bi day mat dajaloo nekk lu sorti nga gis ci sa bopp ñu doog la fay loolu la ñu d'accord bu jëmee si comme niñ ko waxee li nga xam ne moom la nit ñi di wax souvent mooy condition yi tamit euh, fàttoon naa ko waaye ci olof xam naa ni am na solo ñu wax ko nit ñi. ni ñuy amee uyaas Sénégal yoon dafa am nu mu ko tënkee da ngay joxe benn weer boo xam ne mooy mensualité bi uyaas bi parce que uyaas bi da nga koy fay ba pare doog ko tëdd beneen weer bi mooy li nga sa costion la garantie la mooy nit ki booy dugg dañuy seet ndax kër gi baax na ndax ni nga ko jëlee yow doy na la bu la doyee yëpp nga dugg booy génn bàyyi woo fa benn facture delloo nga kër gi ni nga ko jëlee woon parce que nit ñi war a xam kër boo ko jëlee ñu jox la ko mu bees peinture ko def si jumtukaay yu bees boo fay génn da ngay fexe ba loolu yëpp nekk fa bu fa nekkee amee loo fa dara amee lu ñu la dara ñu daal di jël sa caution delloo la ko te mu leer si bopp nit ñi parce que communication yi jàll bari na caution yi nekkul si agence yi caution yaa ngi si borom kër yi ñun bu ñu signé contrat léegi à la minute près borom kër gi woo baa ñu woo ko nee ko diw jëw na sa fay na nangam fay na nangam fay na nangam signé nañ contrat bi. yónnee ko copie contrat bi yónnee ko xaalisam baa ñu versé ko ko si compte te bu ñu koy dañ koy versé loyaasam versé ko caution xam nga caution nekkul si ñun waaye ñun liggéey bi yëpp ñun ñoo koy def. te bu ñu paree tamit client bi boo moytu ñun ngay xooloo parce que day naan agence bee yokk sama caution agence yorul sa caution c'est vrai moo garantie sa caution parce que si agence bi nga faye agence bi dafa am devoir topp sa caution ba keroog nga jot ko loolu moo jaatu tamit loolu yëpp si liggéeyu agence bi la léegi nag diggante client bi ak agence bi dafa am service bu leen boole client bi dafa am lu mu soxla demande ko agence bi en tant que professionnel fexe ba loolu client bi soxla mu sotti. nga am sa dëkkuwaay parce que agence bi balaa mu ngay proposer kër day xool daf koy laaj information gi ñuy wax recueil de l'information fi nga bëgg dëkk ndax yow sécurité ngay wut wala confort ngay wut wala espace ngay wut wala nangam wala nangam wala nangam agence bi du tëb rek proposer la day dem xool yi ba pare ba xam ne critères yooyu yëpp mi ngi si maanaam ñett wala ñeenti produit yoo xam ne mën na la ko proposer mu doog a wan def ak yow tuur ba nga gis ba mu doy la ba ngeen d'accord ngeen doog a signé loolu service la da nga ko war a fay léegi nag fayin bi ñun am nañ si xalaat bu bees mais fayin bi na nit ñi comprendre ni bu dee régir agence immobilière loi bi ko régir si si arrêté euh, ministère du arrêté ministériel bu 1987 honoraire d' agence égale un mois ñun binduñu ko inventé ñu ko yoon moo ko yoon moo ko inventé bi sa leeru kan moo am sa document bu leer ma wa ma wan leen aperçu rek. non non yéeg bi sax daf may mi ngi nii arrêté la lii arrêté ministériel la bu 1987 du code commercial ñoom ñoo ko wax dañu wax si exercice su agence immobilière mooy gestion immobilière wax ni que gestion immobilière ñun li ñuy gagné si pourcentage xam nga lan la diggante 4 ba 9 pour cent tey yow boo ma dénkee sa kër di fayeeku 100000 man en général bu bëree ba bëri 9000 laa si am si yi. ah neuf mille mun na fay sama charge. ñu wax nañ waxante dëgg. mënuñu passé ko te léegi marché bi dem na ba nga xam ne dañuy mettre en concurrence dañuy ñëw kii proposé ko 7 pour cent man ñu ñëw proposé ma 5 que ñu proposé ko 3 ñu jël. léegi ñu parce que man damay bëgg bien yu ma gérer kii bëgg ñu jël nga jël su ko defee prix bi di gën a wàcc la majeure partie bien yi ñuy ñun yi ñuy gérer mais en général pour la plupart contrat yi ñu ngi ko signé autour de cinq pour cent waaw ah, loolu nag lan lañ ñu bëgg ji léegi ñun duñu ut beneen ressource te ñun beneen service la ñuy def parce que cinq pour cent boobu mooy liggéey bi ñuy def ak bailleur bi voilà loolu moo ñu tënk ak bailleur bi mooy di superviser di xool di toppatoo di dugal di génne di maanaam lépp nekk si contrat bi ñu fexe ba mu sotti loolu moo ñu tënk ak mais client bi nga xam moom moo ñu demande service ñu ut fexe ba service boobu mu sotti mais kooku li ñu booleeg moom benn paiement kese la benn pay la moom la ñuy woowee commission. léegi nag dañ dul leeral nit ñi commission boobu lu mu doon ak naka la doonee ak ñaata la ak état bi tamit après li muy jël li muy taxé agence immobilière yi yooyu sax détail yooyu dugguma si duma si sori comme je dis fu mu ne nii moom suñuy xarit lañ ñoo ànd di liggéey waaw kon nag nañ ko nit yi xamee noonu xam lan mooy seen droit lan mooy seen devoir naka la ñuy amee luyaas lan moo war a ñaari weer yi wala ñetti weer yi léegi nag am na ñuy exagéré on est d'accord am na ñuy laajte ay deux mois trois mois quatre mois cinq mois jaaduwul ñun d'accord ñu ñun sax arrangé wuñu mais bu ñu borom kër imposé ne ni ko moom loolu lay laaj ñun mënuñu si dara soit duñ ko jël soit nga proposé client bu ko client bi attane mu jël su ko attanu nga bàyyi munoo si leneen léegi nag état foofu loolu tax nag lii état di teg ni am solo. parce que état li muy teg nii ànd si ak ñun ñii ñëpp ak professionnel yëpp dina mun tax lii dinañ ko gën a mun a saytu képp koo xam ne yaa ngi loué sa kër si noo xam ne du yoon état tey mun na mun na fexe intervenir ba loolu du sotti nit ki nga xam ne moom la ñuy teg euh, injustice boobu moom it war na mun a xam fi muy dem ba ba ba fexe ba programme am sotti te te te duñ ko génnee duñ ko duñ ko duñ ko yóbbu yóbbu fenn.